bëgg nañu tamit maire yi nekk ci biir département bi yëpp duggal ci seen loxo ak seen conseil municipal té ma ngi fatali sank ni président jël na dogal yombal maire yi ak seen bureau euh, municipaux yi euh, ay facilités yo xamni mën nañ ci jaar pour mëna génné génne copar bu duggal ko ci xex bi ci walu jënd dundu ci walu jënd masque ci walu jënd gel hydroalcoolique ñoom it ñu jël combat bi gaddu ko gaddu bobu nak dafa wara continuer ndax ci walu xexu li nga xamni moy contamination communautaire ñu wax cas communautaire il faut ñoom ñu gëna continuer di informer seen askan ci danger yi nga xamni mo ci am bayyi dajalo bu bare bi bayyi déplacement yu bare yi bayyi li nga xamanteni moy mooy bi te di takk ay masque masque yooyu sax tey jot nañ ci tey am na luñ ci jot ñoom it dinañ ci gën a indiwaat lu bare bàyyi lépp loo xamante ni mooy favoriser ces cas communautaires ndax chaque jour léegi dañuy gis ni mu gën a yokk kon mbir mi dafa doon mbir mu mu mu mu doy waar mu metti boo xam ni il faut une conscience collective pour que ñun ñëpp ñu mën cee taxaw ci ginnaaw président Macky Sall pour xeex li nga maire donc encore une fois nous ngi lancé un appel Nous nañu lu bare mais nañu mais nous continuer ci cette localité avec ak autorité administrative pour combattre le Covid 19.